li ñu fi dajale projet la boo xam ne projet banque mondiale la boo xam ne président de la république ci boppam moo ko toppatoo pour jàppale artisans yi ndax yàgg nañoo tawat ci wàllu formation ku ñu ci mën a jàppale yàgg na noo tawat ci wàllu financement ku ñu ci mën a jàppale yàgg na noo tawat ñu organiser waat secteur artisanal kon tey bu dee indee projet bu toll nii di trente milliards mu jox ko ministère formation professionnelle te ministère yu bari doon ko xëccoo mu jox mu jox leen ko ñu jox ko direction apprentissage mu ànd ak ñun chambre des métiers yi ak organisation professionnelle ñu ci liggéey loolu du mel lu may rafetlu ko te gërëm ko ci bu baax di ñaan artisan yëpp nag kenn ku nekk taxaw ba li ñu séenu ci nun yàlla mën a dogal ñu ñu ñu defal ñu ko ndax lii dañ cee tollu tey mais am na yu ko jiitu léegi daaw jox na euh, financement boo xam ne artisan yi la ko jox muy un milliard boo xam ne dañ ko losi woon ci ASEP financement boobu amul woon apport amul garantie te amoon na mën na nga ci jël ba 5 millions te loolu artisan yi am na ci ñoo xam ne si ne jël nañ ci xëy na newoon na dana dolliwaat nag xaalis boobu pour ñu beneen bi aussi procédure bi am na ci loo xam ne si ne aussi def na ko ci muy muy. Euh, muy ay financement yoo xam ne jox na ko certaine organisation ak i artisan direct loolu tam chambre de métier la ko defal ci wàllu fossé bi ñu doon wax léegi euh, tey joxe na cinquante hectares Diamniadio yoo xam ne tey ministre bi jox na ko financement bi ña nga ca di ko liggéey pour que li mu bëgg ci dëkk bi ñu seetal ko mécanicien yeeg yenn atelier yi nga xam ne xëy na bu nekkee ci mbedd mi xatal bu boobaa ñu mën leen a toxal yóbbu leen foofa mais teewul nag aussi noo ngi fii ci Dakar. lu mel ne euh, AC piste bi ak euh, Elton waa nekk ci Elton ci booru aéroport ba ñooñu comme suuf sañ nekk aussi état ko moom noo ngi ñaan su loolu ñu defar ay këyit mën leen koo jox pour ñu man faa toog loolu bëgg bëgg bëgg nañ ko bi ci des aussi mooy tey ci suba rek noo ngi woon Géejawaay ci benn manifestation boo xam ne benn artisan moo ko doon def muy Mama Sow maa ngi àndoon premier vice-président góor gi bi ma interpellé monsieur le maire euh, Euh, ali Sall ci suuf si nee naa ko ay at ñetti at maa ngi la koy wax ba tey jii di ñeenteelu at suuf si nekk ci Guédiawaye nañ ko nañ ko dagg jox ko artisan yi effectivement bi muy tontu dafa ne rafetlu na ko lool te loolu dama ko cee dimbali ndax mi ngi ci ci yoon wi di ko def waaye goon na si dimal waaye kaddu yooyu jàpp nañ ne na bu bu déwénee yàlla mën naa dogal ñu ñu ñu ñu bañ ko waxaat fekk loolu am en tout cas noo xalaat toujours guddi ak bëccëg. artisans yi lan mo doon seen comme ci réew comme ci bitim réew. gannaaw banque mondiale en accord avec euh, état du Sénégal andi nañ 30 30 milliards de francs CFA Nous avons nañ jël 800 artisans ñu former leen 32 000 jeunes ñu ànd ak ñoom bu la former ba pare ñi ngi leen former ba pare ñu jox la atelier bi ñu jox la équipement. a pas plus grand Si nous bëggee développer nous suñu mel développer il faut former les gens et leur donner les moyens de travailler loolu motax tax mu ñëw pour sargal leen féliciter président Mbow parce que seen ligue bi dafa rafet parce que li su fekké ni ku nekk gox bi nga yëngu def nga lu melni nii dëkk bi la mu dem loolu rek motax ma j'ai beaucoup d'activités mais loolu motax taxoon ma pour sargal leen tandis que man damay nekk seen disposition en tant que maire luñu soxlo soxla ci sama commune la bok te war ci intervenir je ne réfléchis pas je suis avec eux